taxawu ci barke salaatul fatiha mais gis nañu ñoo xamante ne fu mu toll nii dañuy génn mën naa ci lim Souleymane Jules Diop euh, gis nañu ku mel ni Ismaïla Madior Fall waa Mame Mbaye Niang ñoom ñëpp li bu ñu génnee li ñuy wax mooy président pare na moom sax àndul woon ci report bi président day dem li mu bëgg mooy juste defar réew mi ñoom ñi nga xamante ne euh, dañoo ànd ak Macky président Macky Sall bëgguñu gëmloo ne Euh, seen communication lépp di loo nit ñi ne président li muy def nii réew mee ko tax a jóg waaye daraay boppam nekku ci gis nañ sax euh, Souleymane Jules Diop wax ñu ne président njabootam doxu nañ léegi Maroc lañ dëkk. Euh, gis nga ku jeexal. Mhm. ku jeexal doo fi toog naan pare na jeexal nga na organiser election nit ñi ku gañe gañe nga dem say woon mooy li ma la wax rek. Mhm. lii du defar réew mi taar réew mi la. Mhm. parce que pousse élection ba décembre. ba nangam ci décembre. Mhm. kooku moo jaaduwul. kooku moo dul moo dul lu xel mën a nangu. Mhm. jaaduwul te nit ñi ñuy bari duñ ko nangu nag. Mhm. ñu baree bari duñ ko nangu xanaa ñi ànd ak moom ñoo koy nangu ak ñi nga xam ne dañ fi am seen poste di niin. mais ñi nga xam ne gisuñu seen bopp même ñi ci gis seen bopp sax am na ñoo xam ne ànduñu ci. nañ def élection yi ku gañe nga xam ne gañe nga ku gañewul nga dem sa nga dem sa yoon. mais lii mu nar a continuer nii du kuy defar. kuy réew la lii nii du luy defar réew luy taar réew la lan moo tax policiers yi génn si mbedd mi. lan moo tax xale yi génn. Mhm. ah su fekkoon moom pour defar la danaan toog naa organiser élection yoo xam ne ñëpp dañ ciy bokk. joomaay mhm. da ciy bokk mbugaan da ciy bokk sonko da ciy bokk ñëpp da ciy bokk. Mhm. ku gañe ñu xam ne gañe nga ba dem sama yoon. gis nga jaar ci bunt bu mag bi. moo gën jaar ci bunt bu ndaw bi. ci bunt bu mag bi moo gën jaar ci palanteer te gis nga weex waxu Seex Anta boobu. mi ngi mi ngi xeeñ. waxu Seex Anta boobu mi ngi xeeñ mën nag. Macky Sall. président Macky Sall jàmm laa la yéene te ku dul man jàmm la la yéene. élection yi ñu jub si organiser ko ca bis ba ku ne dem sa yoon ku gañe ñu xam ne. mais mbirum sacrifice su. trois bañ lay trois cent bañ lay fal di la dugal pale ñëpp la gunge ñëpp a kontaan. ñëpp di yëkk seen loxo nga dugg dugg bu rafet ngalawaay booy génn génnal génn bu rafet. loolu lañ lay ñaan. 313 nag. xew ma benn vidéo bu ma gis ñuy wax ci mbirum sacrifice mel ni euh, fi mu toll nit ñi dañoo gën a euh, xaptalu ci yooyu mel ni nguur euh, nekkatul sunu boroom moo koy dénkee mais nit ñi am na feneen fu ñuy jaar peut-être pour foqati nguur walla pour toog ci nguur. fi ñuy jaar fan fi ñuy jaar ki ñuy jaar suñu boroom moo ko sàkk. Mhm. fi ñuy jaar ba ñu digal leen. moo xam nguur la nag wala du nguur xaw ma ku mu doon. Mm-hmm. mais nag yooyu moom sacrifice la. 313 nag yooyu. xaw ma ku ko moom ñu lépp rendi xaw ma ku ko moom mais sacrifice la am na benn bëy bu ñuul bu nekk si biir diggu nag yi bëy bi rayaguñ ko gis nga dinaa la wax ci bëy bu ñuul. Mm-hmm. gis nga bëy bu ñuul boo bëggee kortu nit. soo bëggee kortu nit. Mm-hmm. muy niis xam nga niis. niis waaw ngay niis di sew. saa boo yeewoo di sew sa poids di manqué. muy jeex muy jeex. Mm-hmm. ci bëy lañ koy def ci bëy bu ñuul lañ koy def. Mm-hmm. te ku la digal saraxu bëy bu ñuul mi ngi lay sànq. Ah, oh, mi ngi sànq ay doomi aadama nag yooyu nag xawma ko ko moom. Mm-hmm. xawma fu mu jëm mais xam nga ñan laa yërëm. ñi nar a lekk ndawal bi. Ah, oh, ñi nar a lekk ndawal boobu. ñoom laa yërëm gis nga nag yooyu bu koy rey. dafa am luñ koy luñ koy xol. dafa am luñ koy mbuur balaa ñu koy rey mm-hmm. dafa am ñu koy xol dafa am lu ñu koy mbuur mm-hmm. moo xam ci guddi gi lañ koy def bu ñu xëyee rey nag bi moo xam dañ koy def une heure de ñu rey nag bi mm-hmm. mais lu ca mën a am rek kooku du nagu kese dafa am lu tax lu ko wundu te yàpp bi képp ku ko lekk yaa ngi ci danger bu rëy rëy rek du lépp nag la ñu mën a wax tele mais daal junj doy na borom xel mais li xew tey ci bés bi est-ce que jaroon na ko ay nit ñëw ne dañuy dem marche pacifique toog ñu ñëw commencé leen dóor ay lacrymogène ñu ngi ñuy wax ne fu mu toll nii xawma sax est-ce que information bi jar na ma koy wax maam góor gi Njaay ancien lutteur euh, dafa génn àdduna walla yooyu ñu ne ay lacrymogène tamit yi ñu doon dóor peut-être moo moo moo tax loolu lay xew information bi nag wóoruma mais ak lu mu ci mënte am bu dee dëgg la ñu ngi koy jaale te di masaw vraiment ay mbokkam mais est-ce que marché rek jar na ñuy dóor nit ay lacrymogène. jaru ko jaru ko surtout ku ñëw ne marche pacifique. waaw koo xam dafa ñëw ne dama mais bu dee le président Macky moom dialogue bi muy wootee gëm na ko. waaw est-ce que nit ñi bu dee dañuy dox ñaxtu nga bàyyi leen ñu dox seen doxu ñaxtu. bu ba pare dem ñibbi seen kër loolu mooy ñuul ci soow mi gis nga koo xam dama ne damay génn marché. Mhm. te te yoruma xeer yoruma yat yoruma briquette yoruma dara loo xam day gaañ nit. Mhm. bàyyi ko mu génn ma marché mais lii ñuy def nii moo lay wan ni ñoom Mm-hmm. dañu comme na ma la ko waxoon dañuy dem nañu ñëwaat nañu mm-hmm. mais nag yàlla moom du seetaan lii laa yaakaar mm-hmm. wala su yàlla seetaanee lii kon ñu xam ni ñun am na lu ñu def suñu borom te yëguñu ko ñu ngi bokkaale suñu borom te suñu borom boo dee bokkaale moom dina la teg mbugalum àdduna kon xëy na ñun dañoo bokkaale suñu borom moo tax suñu borom dañu teg mbugalu àdduna bii waaw parce soo demee ba dëkk boo xam ni dañuy jël góor mooy cinq mu jiite jàkka mhm. wala jumaa mhm. wala jigéen buy tudd doom wala jigéen bu ñuy raamal di ko sukkal di ko tarbiwu mel mhm. ni kuy tarbiwu góor kilifa kon nga xam ne suñu réew mi war nañ ko xoolaat lii moo ñu dal nattu bi lañ suñu borom di xaare di ñu mbugal waaw kon jar jar na vraiment li waa ji doon wax ñu def ndëpp national war nañu ndëpp ñu wàcce kaamil tuub te ñu ñaan te ñu toroxlu ñu jàkkaarloog suñu borom ñu ñaan mais xam naa ci lenn de su fekkee lii day continuer toog bi continuer ñu war a demaat ci kaso bi demaat kaso baye boo ñun ñu toog toroxlu ñun ñëpp génn ci mbedd mi toog toroxlu jàkkaarloog suñu borom jàkkaarloog penku bi. Uh-huh. jéem a ñaan suñu borom xam ne dañoo tooñ yàlla te yëguñu ko. Uh-huh. wala dañoo bokkaale suñu borom te yëguñu ko mais lii am na luy ñuul ci soow mi parce que gis nga gis nga dafa am sama benn doom bu ma woo mu wax ma wax bu yéeme. mu ne ma yaay aadama ma ne ko naam mu ne ma am na xeet boo xam ni ñi ngi ñi ngi France fi ma nekk nii mm-hmm. mu ne ma ñooñu dañ leen a jox xaalis yu baree bari mm-hmm. ay kër mm-hmm. ci Sénégal xeet boobu dinaa ko tudd ay Guinée Bissau yeen lañu mu ne ma dañoo ne fii Sénégal euh, France réunion bu am dañuy dem te ñoom duñu sénégalais mais defal nañ leen lépp wëlgatiku dañ leen a daggal ay terrain fii ci Sénégal muy wax bu yéeme man de nekk naa Mauritanie sama l'âge de 14 ans laa dem Mauritanie. Mhm. wala 15 ans 84 laa dugg Mauritanie. Mhm. te su ma bëggoon nationalité foofu dama koy am. Mhm. ndax amoon naa buntu yooyu mais dama fiéroon nekk sénégalais. bëggumoon jël benn nationalité jàmbur. lu ne gis naa ko mais ñun ñi di sénégalais kenn mësuñoo ger. kenn mësuñoo may terrain. kenn mësu ñoo daggal suuf. Uh-huh. nga ñëw leen ngeen bokk suñu dëkk ñu woteel leen. Uh-huh. ngeen woteel ñu. gis nga Sénégal gii rëb na te tas na. Uh-huh. te ñu bari dañoo wàll yaan fekk suñu ba pare ëpp ñu doole suñu réew mi. ñu bari ñu ngi fii li ñu am ñi nga xam ne dañ fee juddoo ay jeunes yi fi juddoo màggee fi yaroo fi. amuñu ko ay yeneen étranger ñëw ci suñu dëkk bi. am ko sii suma kenn nag. sii suma kenn te rasistu ma mais dafa am loo xam ne dafa jaadu am lu jaaduwul. nañuy xool li ñuy def te xool fi ñuy teg suñu tànk. Mhm. mais lii du lu jëm kër te fa mu jëm neexul. Mhm. waaw mais Yaya image yi fàttewu la fàttaliku la 2011. waa 2011 la ma fàttaliku. Ablaye Wade bi mu fi dem ñoom Mamadou Diop yi deewoon. wallaahi gis Macky Sall